am rek ay seede ak i témoins yu ñuy def ci suñu freer Pape Maguette jaw nga xam ne man ak moom dañoo bokk sëñ Saaliwu bokk doon liggéeyal sëñ Saaliwu ca daara ja li ñu boole doon lu bari ca sëñ Saaliwu daf ñu daan wax ne loolu moo di mbokk kon kii suma frère la ca lépp lu muy dugg daf ciy waxtaan ak man dañuy waxtaan lu baree baree baree bari xeebul sumay xalaat waaye man tamit xeebuma ay xalaatam mbir mii bi mu nekkee ci xelam waxtaan nañ ci ma ne ko pap mu naa ma ne ko xam nga lan mooy honnêteté ci nit mooy bëgg sa réew bëgg sa dëkk bëgg fi nga dëkk mu am lum la jaral bi ma ko ko waxee mu xalaat ci it xam na ni li ma ko wax mooy dëgg ndax kenn ku ci nekk xam na ni président Macky Sall ak loo ko mën a mën a mën mën a wax du liggéey bokku ci te ñun nag ku defar dëkk bi dong lañu bëgg ca boobu ba léegi ñi ko koy xañ bii nag dafa jot ñu jox ko ko yéen waa Kër Niang nag dafa am léegi information bu ma fi am bii dafa neex que ni yéen rek yéen fi mas a gañeel APR fii ci commune Touba loolu nag delloo leen buum ca booy boy ba na safaat sax tàng jër boo ko defee président Macky Sall ñii buñ taxawaatee ak moom di wax danañ ko am luñ ko wax te bu boobaa dana ko dégg ndax bi mu recevoir département bi am na lu mu leen wax am na luñ ko laaj am na lu ñu wax mooy njëg gi dem leen fexee gañe gañe bi nag ñiñ ci gën a gën a yaakaar mooy yéen soxna yii toog depuis bi nu duggee ci politique ba tey lépp loo xam ne si woonan leen si ñëw ngeen ànd ko ak ñun ba mu mat sëkk yàlla dafa dogal ñun ba ñuy dugg ci politique dara warulu ko lu dul dëkk bi nga xam ne fi lan dëkk ak koñ bi nga xam ne fi lan dëkk ñu dem di fekke fa ñuy décidé lépp loo xam ne si ay cër la ñu di ko séddalee kër ñang gis si boppam loolu moo tax ñun ñu dugg ci politique comme yàlla dafa dogal depuis 2010 2011 ba tey ñu dugg ci parti politique muy parti bi nga xam ne si mooy parti démocratique sénégalais foofu la ñu njëkk defee sunu politique sunu yaay honorable député ay Gaye wax na ko léegi su ma frère Bàcci Soog léegi la fi jógee mu jiite woon structure jeunesse bi muy UJTL ñu nekkoon ci biir parti boobu di fa militer ànd ak président Ablaye Wade ba président Ablaye Wade jóge ci nguur gi 2012 booba ba tey ñu toog di opposé président Macky Sall ba heure lépp lu mu leen mas a wax ak fu mu mën a jëm ngeen ñëw ànd ko ak ñun. loolu nag tey jii boo gisee ñu commencé fi ba tey ñu ñëw ànd ak moom dinañ leen si leeral lu bare bare ndax yaakaar naa ànd bi yàgg na ñu yàgg jëflante ak yéen si lu rafet ndax comme waxal ngeen ko seen bopp 2017 nanu njëkk a yëkkati fii financement 1 million 500 jàppale leen ko pour ngeen di si liggéey ci nit koo xam ne si opposant la defal leen ay formation hors de éclairance publique muy wàllu làmp yi lépp luñ ci man ñu liggéey ci liggéey bu am solo lu jëm ci carte d'identité yi ak kayitu judd yi képp ku nekk ci koñ bi te amoo ko lépp luñ ci man ñu def ko ci loolu moo tax ñu ànd ak yéen depuis boobu tey jii comme nag yàlla dafa dogal président Macky Sall moom moo jiite réew mi moom la fi yàlla teg le ministre intérieur Antoine Félix Diome di taalibi Serigne Saliou ñu bokk sëriñ sëriñ Cheikh mu sëñ Saliou di sëriñam di sama sëriñ Mouhamed Cissé mii nekk sama wet nekk candidat moom tamit bokk si njabootu sëriñ Saliou ndax sëriñ Moustapha Saliou mooy sëriñam kooku nag tey jii bu demee ba gis ma woo ma ne ma ñëwal ñu waxtaan ñu ànd jàppale président de la république pour tabax Sénégal loolu du ma def lu dul ñëw ànd ak moom ngir jëmmi sëriñ Saliou mi nga xam ne si moonu boole te li waral loolu nag ànd bi yombutoon ndax ñun lépp lu ñuy jiital rek négociation bu nu man a toog di ci waxtaanee du nu wax sunu intérêt bopp mais intérêt kër ñang la jëkk jiital ndax bu fekkoon ne sunu bopp rek ñun lépp lu nu yàlla jox doy nañu mais politicien bu nuy toogal ak koo mën a doon ak foo mën a bokk dañuy ñëw wax la li nga xam ne si moom la sunu koñ di soxla. boo si manee jàppale ñu ànd ak yow si loolu boo nu si mënta jàppale ñu war na ginnaaw waaye fas yéene wu noo ànd ak benn politicien di ñëw di nax suñu askan. moo tax bi nu demee ba toog ak ministre bi ñu xamal ko ne ko fi nu dëkk kat am na ay mébét yoo xam ne am nañ ko fa war leen a jàppale si lu bari bëri ba yàlla dogal tey jii sees yi fi exposé woon léegi lañ ko fat muy téeméeri sees moom moo leen ko jàppalee jaare ko ci sama loxo. cinquante palaat yu bees tàq yooyu tamit moom moo leen ko jàppale jaar ko ci sama loxo ñu war ko teg si loxo mbootaay gii nga xam ne sii yaa wal ci Jóob moo ko jiite mu boot koñ bi yépp nga xam ne képp koo xam ne sii dafa amati soxla programme xew day ñëw jël ko bàyyi fa garanti bi comme ni ngeen koy defee bu paree delloowaat ko bu ngeen gisee koo xam ne si day luye ngeen luye ko jël xaalis boobu denc ko seen kees pour mu gën leen a yokku bu nu jugee si loolu dinañ jéem a lijjanti baas boo xam ne sii dinañ ko jox mbootaay gi ba tey mu bokk ci bagage yi loolu di dinañ ko def incha allah kenn mënta wax tamit te waxul li nga xam ne sii mooy alxuraan ndax moo tee dëkk bi moo tax dañu jëndoon ay basang war a jox daara yi mu sàll moom mi nga xam ne moo nekk fi si koñ bi di jàngal xale yi alxuraan. pour bu ñuy jàng ñu am fu ñu toog surtout nawet bi ñu jëm loolu tamit mi ngi fi dinañ ko ko jébbal ak daaray Baye As Ba. merci beaucoup daayire bi nga xam ne moo nekk fii tamit di daayire turandoo Serigne Fallou yi ñu nekk ay xale te soxna Aada Jaw jiite ko nga xam ne ñi toog fii ñëpp ñu si bari seeni doom dañ cee ñoo ñu tamit jëndal na leen ay basang yoo xam ne si heure bu ñuy daayire dinañ si man a toog ndax daayire turandoo yi Serigne Fallou la mi ngi fi si koñ bi. te loolu lépp bu amee dañuy sant ministre Antoine Félix Diome ak président de la république ndax ñoom ñoo ñu dooleel ba nu maa am loolu. kon politique du noonoo ak kii bañ naa ko wala neexuma da xool ki nga xam ne si moo la mën a amal njariñ développer sa koñ nga ñëw ànd ak moom waaye am na ñoo xam ne si bu ngeen leen falee bu ngeen xëyee suba bëgg leen a jot téléphone du ngeen leen jot téléphone bu ngeen gisee nag liste bii bi ma Antoine Félix Diome décroché. pour ma ñëw Benno Bokk Yaakaar ak parti bi di alliance pour la république ma gën ci sawar liste bi ay nit yu am qualité ñoo si nekk ndax kuy contre ba am liste boo xam ne tuddal nañ leen si nit yii ñenn ñi bokk si njaboot Serigne Touba liste boobu noonu da ngeen koo war a voté la 31 juillet 2021 insha allahu rabbi ndax a yi foog ñu waxante dëgg ñun wax naa ko ministre bi. wax ko ñi nga xam ne si mooy Moussa Mbaye mii ak maam Dame Lo nga xam ne si ñoom tamit ministre bi moo leen indi ci liggéey bi pour gën a yaatal ñun noonoo wun ak président Macky Sall ne dañ koo bañ wala dara ñun ku nu teg si réew mi dañuy xool ba xam yaa ngi liggéey réew mi wala liggéey yoo ko te ku ne xam na ne autoroute Ila Touba rek loolu doy na bilan ndax ñu bari bu ñu daan dem Dakar fii yoonu Bambey Diourbel la ñuy jaar ñu leen di yàqale te tey jii Dakar boo fay dem une de temps nga egg biir Dakar boo dul jóge Dakar ñëw Touba une de temps nga agsi def fi hôpitalu niveau 3 boo xam ne ay milliards la def tamit assainissement ndax ñun nit ki mën nañu taxaw di la waaye tamit ci biir contour bi dañuy gëstu say réalisation xool li nga def si dëkk bi ak li nga ci defut buñ gisee na dëkk bi mu avance si liggéey ñu bàyyi lépp luñ jàppoon ñëw ànd ak yow ngir njariñu Sénégal ak njariñu koñ bi nga xam ne fi lañ dëkk kon tey jii loolu moonu indi si lii tey jii ngeen xamee ko noonu te sunu njor rafet na si yéen di ngeen jàppale ndax lépp lan daan jiiñ madame Aminata Touré daan ko jeey jiiñ Abdoulaye Daouda Diallo daan ko jiiñ Ali Nguy Ndiaye daan ko jiiñ Amadou Ba tey jii bi Antoine Félix Diome duggee Touba pour yokk parti bi di APR ñoo ngi dégg ay nit naan Antoine Diome dafa am ambition dafa bëgg a remplacer président Macky Sall di ko tuumaal yooyu nan ko arrêté ndax tey jii ku yokkul daga ngaa wàññi ndax tey jii bu fekkee ay ndaw dañu nekk si opposition di contre parti au pouvoir ay élection yu jot ñu bokk ñi leen di yàqal ministre Antoine Diome kenn gënu koo dëkk si dëkk bi taalibi Serigne Touba la nekk taalibi Serigne Saliou kooku bu demee ba xool ay nit ne leen kaay leen ma indi leen si parti bii ma nekk ngeen ànd liggéey loolu dañ koo war a rafetlu waaye nag ñi ngi gis yenn ndaw yoo xam ne ñi ngi si réseaux sociaux yi di bind loolu Antoine nag gor la ndax président Macky Sall Antoine Félix Diome homme de confiance am la ndax intérieur ak nen sensible ñu ne leen lépp luy police Sénégal yaa ko jiite ak sécurité kan wi koo wóoluwu doog ko def kon nag Antoine Félix Diome ministre bu président Macky Sall wóoloo ba jël ko ñëw jox ko lu toll ministre de l'intérieur ne ko seereel ma ko bu dee gor war naa fay naar bi xoromam liggéeyal président Macky Sall ci lim ko defal te loolu noonu si la nekk nii.